fasiyene waxtane tay tank bu njëkk bi ci fastajab lahum rabbuhum mu tàmbale ci baytu fazal lazina sa'idu bil khairi wa baa man lam yas'adu bi dayri ba ci mimuk minni lahu anfa hamdin wa shukur dha qidmatin lil mustafa al abdi shakur dañ bi wax ne faaza allazina saadu bil xayri waa baa man lam yas'adu bi dayri أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم Sëñ Tuubaa nee na ñi nga xamee ne texe nañu ñooñu tono nañu ci aw yiw waaye ñi nga xamee ne texewuñu a ah, yeyoo nañu ay lor ak i ñu bax ñi al abraru def na leen terele bin naimi ci xewal waaye fi jaaruk say say se kàccoor si des na leen këpp ca jaxim moy safara ñi nga xam nak aw julit lañu waye dañu lank ne dañu jaamu allazina tarakul ibada li man man lam ñi nga xam dañu bayyi won jaamu yalla def na len wommat jëme leen ci sawara ci yalla sa nga xam ku ko topul malak la taiba man arada an yanquda ma abramahu man dayfahu lam yudama neena ki sonu deug moy ki nga xamee da fek li yalla faste mu ñew ne da koy fecc xana yalla mom moy ki nga du nangum moko koy toroxal ak garam جزاء من بارز زل عرش بكى فكل من أبكاه ذو القرص بكى am nañu jàng fa kullu ma waaye fa kullu man a gën a wér ndax ma day mel ne jëmul ci lu am xel te man ci lu am xel la jëm te jooy ñoo ngi koy gën a séentoo ci ko am xel wala luy dund dundinu doomu aadama suñ bi ne jaza umam barazal arshbuka képp koo xam ne ma ngay leewatoog suñu borom kat ak payam moom du dara lu dul ci joolee mujjee ndax mooy mooy mooy jëm suuf ak daanu fa kullu man abqaa husul kursi baka mu tegi jooy nga jooy ku mu jooyloo nga jooy inna allazina kafaru wamtana'u min tawbatin ra'aw jazaa ma sana'u ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla lank ne duñ ca génn duñu tuub mukk bu yemal xayamee dañu gis dañu gis payug la ñu defoon ca mooy lànk ne duñu tuubi ak di weddi yàlla ak ko moom lan moo leen cee fekk butunuhum sakanaha la aqaaribu wal kullu minhum min sadidin sharibu seen biir ya ay jiite cay dëkk ñoom ñëpp ca sadid la naan muy dëtt joo xam ne moom la waa safare di naan nee bu boobaa ca lañuy naan ñu ne ko mbàkke loolu mooy yéefari waaye jullit ñi nag mu ne lil muslimina wa kullil muslimaat nuuru lazi azhaba ahla zulumaat julli ñu góor yi ñu jigéen ñi nag moom leeru ka nga xamee ne moo dàq woy lëndëm yi ñooñaa mooy yenente bi alayhi salaatu wasalaam leeram ca la ñuy xewalo lan la jullit ñi am mu ne humul lazina fil jinaani yaxluduun wa hum bima yasurruhum muqalladuun jullit ñoo ñoo ñoo nga xam ne ne dañuy sax ca àjjana te la leen di bégal day ànd ak ñoom di sax ci àjjana munaahumu tawaw bil istilaabi wal kullu bil bushari zunqilaabi estawaw doonañu làq munaahum seeni mébét bil istilaabi te kenn dootu ko rekki di ko nangu ci ñoom wal kull koo gis ci ñoom rek zunqilaabi ma ngay walbatiku di sàllar ñi ko bil bushari ci mbégte rajaahum wa xaqaqun wa mulliku fi abadin ma laa yaraahu malikum lo bëgg gis raja ahum seen yaakaar ya ñu yaakaar ñoom bu xaqaxun day concrétiser wu day dëggu day am fa saasa wa fi abadin dañ leen di moom la loo xam ne ñoo koy ba faw lañ leen di moom loo mala yaraxu maliku lu buur mësta gis loo xam ne buur du ko gis xam nga guruk aduna faw nga dee jóge fi wala ñu fal la wala ñu rey la waaye ñoom seen nguur dootul dog te fuñ toll di am nguur goo xam ne buuru mënu ko seni tabax bina yaalu walay walai yeen safil amma mubarizul alifa musafil seni tabax ak seni njende seni mandarga ci nak ala àllaaxira day jëm kaw rek te du jëm suuf mukk waaye suñu borom fa safil kuy aji jëm suuf a ngi noonu kon nak sëñ bi di yedde dem fale te bëgg am ci lii ku dem safara te beug dem aljana ku bañ nan ca sadit te nan ci dexe aljana ya sëñ bi digal la solution bi mooy billahi aminu wa aslimu maa wal toxsinu li waji baqit xama billahi aminu aminu billahi gëm leen yàlla wa aslimu te jébbale seen lépp maa mboolem seen wal toxsinu te ngeen boole ci ak ku ci nekk ak fasa niveau toll bu dee moomin bi bu dee ki jubul yëbbuloogut kaafir bi aslimu nga moom bu fekkee ki jébbalu dong aminu nga moom bu fekkee ki jémbalu te gëm wal toxsinu nga moom لوجه باقي القمان جد جم سني برام من خمين ما في دس تمان أتنوني يا الله ما مكت هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان ما ما يا الله من خمين ما ما جمونا جم ما يبرام قيول ياتي دي خبرام قيول يساوي قرنية وله الأزمان تمام ما جمونا يب مني له أنفع حمد وشكر ذا قدمة للمصطفى العبد الشكور jóge na ci man jëm ci moom gën jaay jariñi sant xol ak centi jëf centi cër may saxit ci di ko liggéeyal moom jaamam boobu di Moustapha te di jaamam boo xam ne jaam bu sangam gërëm la bul fàtte abonné bul fàtte abonné bul fàtte abonné bul